du man di tey ci wax leen gaa yi Bamba ya ndax ñoo ñaama doy ñooy samay roy teef fi tuubaate xam seeni jaar-jaar te koy xamlee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi tuubaa man basiirooti yàllaa ma def géwalub seex Bamba ak ña dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti way naa fi seex bamba ak doomam ya tey meebat ne cas ca seex sa ku baaxoon way ko ngeen xamati te jooja sax deful kuñ réere naa ku mu doon turam wa siiw na fi dunyaa dun ko deeyaate ak bokku xam na ko lislaam xam ko yoon wi itam xam nañ sëriñ dëru ngir pasteef ca fam jàmbaar la as gor la tey muslim jullit bu dëggal darul asan njaay murit saadix la maa waxati yàllaa ko tànnal mu bëggug baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare di maamam sëtub maam Demba Njaay njare la kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen ba ko defal eh, maam ju tedd ja xam ne làqoon ngërëmul yàlla yàlla na leen ko nangul te fu mu bëggoon a eggal mébétoon a eggal liggéeyam bi ngeen eggale ko ànd ko njaboot gépp waaye sëñ bii di wax rek ne ñuy feddilawaat kóllëreem ak bokkoom ci yéen leen sant ci li jiitu lépp lépp rafet niñ la ko yàgg a waxee rek yéen moom dafa mel ni yéen ak jaar xudus bu doonoon jëm ñuy wax ne yéenay gànjaram ndax ñoo xam ne fu ñu leen tuddee tudd fu ñu tuddee daal xuróos tudd leen te yeesuñu ci yoon wi leneen li ñuy tudd ci lislaam tudd leen ci loolu boole suñu borom la waaye tawfeex la ci ñun ñëpp ñi ñaan yàlla rafetal googu di wéy cay gën a rafet rek njaboot gi nongul leen lool te nangu pas-pas boobu it yàlla gën koo dëgëral ci ñoom bañ ma ne woyefal seenub yenn loolu daal mooy sunu sunu yéene ci yéen ci kàddu sëriñ bi nag la waaye da eh, xam ne ni ñu ko yéenee rek ni la ko sëñ bi yéene wala yéenee ni ko nu ko raw dax xam na lu ñu xamul waaye ñi ngi leen di ñaanal daal gudd fan lool bu ànd ak wér ngërëm li nag moom rafet nañ ci njort waaye nag na yàgg ci ànd ak wér ci dara ji sew su fa. xam ne waaye la ñu def benn bopp la waaw benn bopp la amuñu si sàmm amuñu ko si waaw ndax loolu mooy suñu way suñu loolu toolam na lu ñu digaloon ndax sëñ Ousmane suñu jur man moo toog ma toog sëñ si mu toog suñu bàkk awa toog waa këram ñu toog mu ne bu ngeen demee ba seeti leen ko fi moom door ko doos ne leen moom yow doomi Abdourahim doomi sëñ Ousmane ak sëñ si Amari waaw door ku fi ma door ko rek ne leen moom waaw moo suñu jotaay bi moo tax daanaka doon dund cagaw waaw wa ku fi nekkal door ko doos rek daan ak yow waaye téew nag moom ndigali moom lépp benn ndigal waaw ah, bu jógee sëñ Moussa moom la bu jógee sëñ Cheikh boobu fu mu jógee rek ndigal lépp benn lay benn lay doon waaw ah, amuñu kii ak kii waaye nag moom am na foo xam ne moom suñu lépp foofu la ko joxee nag moom waaw muy door xudus kër kër kër sëñ Mor Moussa gi waaw waaw jërëjëf asan gisal liiti yor nañ ko yar ko fa ba mat xëy dalal ko fa baa sëñ aram samba daa jàngal sëriñ baati fa moom la nekk ba njàngam xaaj mu xëy ba ko fa ngay saa yoroy fa mu dem ngir jàngi xam kooti foofee la wàcce ba wàccaat mokkalee fa itam ba bind kaamil bu wow xëy ñaan lu dellooti ca yooyaat la laxas dem nii gi mbàkke kajoor di jàngi xam-xam fa maam moor anta mbërmaati mu gis fa seex ibra saar ak aadamaa ki sëriñ masamba jóob ñuy bokk lal mel ne que ñu ngi ci màggalu Serigne Darou Assane gi mu mel ne tey ñu ngi ñëw ko Serigne eh, Cheikh Ndioro fekk fi xalifa bi di Serigne Cheikh Ndiaréem ñu bëgg leen a tàllal suñu micro laaj leen lan lañ xam ci bisu Serigne Darou Assane bi xam na centenaire Serigne Darou Assane bi mu mel naka ne Serigne bi mu wàccee ab liggéey ren la ci téeméeri at ñu koy màggal fii ci Touba Darou Ndiaye. Euh, auzu bi kalimatillahi taamaati min sharri ma xalaq bismillahi rahmaani rahim euh, asalaamaaleykum Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, seen mbokk seen seen xarit sëñ Cheikh Sala Ndiaye mu sëñ Cheikh Ndiaye Abdou Razak euh, moo leen di nuyu di leen sant bu baax ci teewaay bi ci wetu suñu kilifa gi di sëñ Cheikh Ndiarème di sëñ Cheikh Mbacke Ndiaye doon fi xalifa sëñ Abdou Razak topp ci ginnaaw magam ja di sëñ Cheikh Ndiaye Abdou Razak yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam ju euh, ànd ak moom ci bis bi di ko sant euh, di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko wér euh, naka noonu ñu koy ñaanal bépp bépp taalibe bu fi teew tey ñuy del rek di santaat yàlla mi ñu may ñu fekkee bis bi di ko ñaan mu bàyyi fi ñu yàgg ko di di fekke te di ko defee ni ko borom bëggee ndax niñ koy waxee saa su ne rek borom bis bi moom léppam suñu borom la Euh, daraam du daray àdduna boo dee xool kaamil yi ñu fi jàng ak euh, tur yàlla yi ñu fi yëkkati daanaka loolu moo ñu gën a ñor ci bis bi te ñu ciy soñ suñu bopp du ci soññaat ñëpp euh, àdduna gi moom lu yëngu yi bari bari lu coow yi bari bari lu daraja jari kawe kawe bu ñu fàtte mukk li tax suñu borom sàkkunu muy jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni foofu la sëñ daar Asan tegoon tànkam Eh, addunaam yëpp da ko jaamu yàlla kon kooku ku koy roy ku ne wala ku ñuy tudd ku ne di la tudd war ngaa fexe ba góorgóorlu ci jaamu yàlla eh, ñun nag dañuy baaxoo bis yu mel nii saa yu ñëwee ñu koy fàttali suñu bopp di ko fàttali ñëpp ndax loolu rek moo fi am ab murit moom eh, liñ koy liñ koy nawee mooy liggéey ak jaamu yàlla loolu moo tënk yoon wi bu ko defee saa su ne nañuy bàyyi xel ci loolu di di di fonk waxtu jul waxtu juróom euh, di fonk yit ponki lislaam yëpp muy natt azaka aj màkka ci buñ ko mënee te di jokkuk mbokk ndax suñ daara san fonkoon na jokkuk mbokk euh, li ñuy def ni bokk na ci jokkuk mbokk googu kon gannaaw euh, farata yooyu di jaamu yàlla ak liggéey nañ ci boole di jokk mbokk gi di fexe di nekk nekk benn si moo bi hablillahi jamian wala tafarraqu noonu ñu koy ñu ko xamee ñu ñu koy dundee noonu di di di di di fonkante di nemm di suturalante di di wegante buñ ko defee rek yaakaar naa ñun ñëpp ndaw lañuy am ñun nag am nañ mbégte loolu ci seen teewaay fii ci kër sëñ Abdou Razak niñ ko waxee woon ci njalbeen rek di santaat bu baax suñu baay bi nga xam ne bu suñu waajur wa di dund di sëñ Cheikh Ndiaye Abdou Razak dafa dafa jëloon lépp teg ko ci loxoom moom mi tey képp ku am soxna ci kër gi euh, moo la ko ñaanale muy cër boo xam ne suñu suñu waajur moo ko ko joxoon daan di saxal ci suñu nopp yi ne dee leen fonk seen baay Cheikh Mbacke ndax kat euh, séq naa man ci teraanga loo xam ne du lu may nettali euh, bis bu ngeen demee ba gisatu leen ma na topp ci moom euh, tey nag suñu mag sëñ Abdou Razak euh, yàlla dogal mu nekk ci ay yitte ne moom moo fi waroon a teew sax ñu ànd ñun ñëpp ci ci gannaawam waaye yàlla dogal mu nekk ci ay yitte ñu euh, teewal ko fi bu ko defee xam naa li mat li li ñu bëgg a wax yëpp du ci xaj waaye ñu sant yàlla bu baax rek di ñaan suñu borom gën noo jàppale ba bis bi ñu teew ko ay déwéni déwén moom it suñu borom yàggal ko fi te yokk wér gi di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamaaleykum bokkam ya ko mu boole leen di teral ku mer mu reelooti ku réer mu gindi ku néew dooleet mu dimbali ko Seex Bamba def ko mam samp foofaati moo tax ñu nangu ca teel jaayam te def ko sëriñ aslamtu nafsi jëjib mu sant farlooti na tomba dem ni meles mbégteem ma ñëw ni jalañ muy soññ njàng ma ak liggéey ca tool yaati ci lii la nekk ba am mbooloo mu kenn gënu leen te ëpp leen pas-pasit yombul ci yoon weeti Seex Bàmba xëy ni jalañ moom it fa dëeru salaam sëñ dëeru teeru ko tey bernde ka kem ñetti fan la fa am mbooloo ya ñëw di siyaar te naa sëriñ dëeru yaa am gan gu jombaate keroog la sant ba bég daanoo te la mu am joxaat ko ak ñamu am naanoo ngi yees looti sëriñ ba nangul ko léppam ñaax ko sant ko faat ñaanal ko dellu mu des naa man du may tëddati keroog la fedd li gëm yokkooti far lu ci jëf naacoo na ñëw na amul nof ci kër géeti day dëkke julli di woor tey naa fi laa kadurus quraanu ak di liggéey sellal garaw faati ma wax la tuuti ci ay jagleem nga xam ni kemam yombul te yombul te yombul nag ma teew looti buur yàlla may na ko fum toogaan janaaw bu sabee mu xam la muy wax ba koy leeral fa gaañaati dencoon na doomi sëriñ tuubaa ju mag jañu naa maam soxna faat ja walaay gii jagle rëy naati moo mas a jiiteet sëriñ tuubaa jullik farata gii jagle doy na ci ay jagleem nangul maati ma wax la nam def gannaaw daru salaami nga xam ni mës toog faste ay baaraam fa réew maati daa génn daaru salaam ngir suuf su xat safa moom dem jàll daaru biram boo di dog looti ñoomit ñu teeru dalal koog jàmm jox ko cëram jiital ko di muritam pas ba yokkooti dundal na suusa dundal fak jaamu yar fa nooyal ko jàll feneen mbooloom ma jóg darati keroog la dem sañci Tuubaa Njaay dëkkam ba mu miin te daa fa jaamu ba dem firdaw si ndaw joote jàmbaar ju ràññiku ci la fit wa dëgër yéenéem jërëy mébétam semmal njaboot gaati àllam ba toñ na ko def fay daara njàng ma jib sikkar sa jolli liggéey bay dox dëggal maati jaambur bu jaambure njaambur dib dëkkam ci lu bir muy mbër bëroon ci lu baax biiram gamel ni biti foofee la yokke yu baaxam yépp guddi bëccëg subaake ngoon amatul noflaay lu tuut tuuti foofee la daa jóge jaar tuubaake addiye tuum dem njurbelin jox ko sëñ tuubaa sa ngam baati na fa lool am xel du nàcc ba daj dayoom ba dërul asan yéem naa ko yéemaati foofee la làqee payug buur yàlla ak ngërëmam liggéey ba mat tarafet mu wàcc ñibbeeti foofee la wàcceb liggéey min xaamid ak tatashin atum tubaab la di 1994 keroog la xew dul ndaw tiit loo na mag ña woon ñoom ñépp a jaaxle banaa àddina tas naati doomam ya jaaxle bërëb dongaam yanaa bu mu jib daarul asan du fiy jóg bu leen wax liiti am gaayu naa ah kay muñ leen mu ñëy li yàlla mooy ka ko def mbooloom mayu xooti bésam batiis na keroog mettiit wërëy na te ñoom ñëpp a maase ci naa dem geeke bettaate ku ñàkk dërul asan loo dërlu dërlu itam faw nga jooy ko kemam yombul fi dunyaati sankul dundam ga li mu moom la am matul katarme susan siisaa la seet kooti loolaay juróom benn fukkam ci atam ba lu mat juróom benn ci at mbóot la làmbooti ñu yónni ndaw la sëriñ njaay ëstu ko demal njaaree ma wax ko sëriñ Touba sangam baati ñi centenaire sëriñ Darou Assane na ñu ngi toog ak ci gi di sëriñ mu sëriñ Mbaye mu sëriñ ñu koy laaj bi su maamam bi nan lañ ko waajale ci centenaire bi ak ban yëg-yëg la ci am indi ñu ci ay leer asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi soppee Serigne Darou Assane noo ngi am mbégte mu rëy ci jotaay bi nga xam ne ni am nañ ko tey ànd ko ak mbokki taalibe yi nga xam ne nii lu aju ci wàllu saytu liggéey bi wàllu communication ñoo ko yore xam naa may njëkk a tàmbalee moo di wax ne euh, ren jii màggal gi fi nga xam ne àgg na fi yàlla dogal tam mu dajee téeméeri at sëriñ Diallo Assane wàccee ab liggéey ak tey wujji boromam mel na ne màggal gi àgg na koo xam ne mën nañu ci la njëkk kon nag loolu li muy firi rek moo di ne ko faral di waxee ne Serigne Touba ak ñi àndaloon amuñu tànk ginnaaw tànk kanam rek lañ am loolu feeñ na ci liggéey bii ren eh, yaatuwaay bi ak yéene ji ak pas-pas bi nga xam ne nit ñi am nañ ci wuy si woote bi eh, lu kiimaane la eh, te itam dana nu biir ne wàllu xamle yëgle wane lu baax moo tax ba fii mu àgg nii mu àgg ko loolu kon yéen ñi nga xam ne nii yéen a toog ci sunu kanam te ñu féetale leen wàllu saytu liggéey bi ci anam googu def leen ci liggéey bu am solo boo xam ne nii euh, noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala dégg nga mu kàttanal leen doolal leen kàttanal mbooloo mi doolal leen kàttanal taalibe yi doolal leen ba seen yéene ak seen pas-pas ak seen wu dogu ci yëkkati mbir maanaam liggéey bii mooy liggéeyum Serigne Touba te dama ànd woon ko ak sëñ Diallo Assane mu jëm kaw te dootu laal suuf mais ko sëñ Mountakha day waxee loolu kon yéene nga ci yoon wi dañ leen ci suñu defal ay ndam ah, defal leen ci ay yokk mu gën a yëkkati bu jëm ci kanam. tubarkalla wàllu organisation bi wàllu nos bi wàllu xalaat yi yëpp ak wàllu programme yi nga xam ne dugal nañ ko ci biir yu ama ama am solo la yoo xam ne dana jàng dana fàttali mag ñi nga xam ne amoon nañu xam ci liggéey dana dana jàngal ndaw da nga xam ne war a moom duñ def lu dul sant euh, jotaay bi xat na waaye nag ñoo ngi sant bu baax a baax di gërëm ñaanal. suñu borom yokk leen yeneen ndam am ngeen ndam ci liggéey bi am leen subhanahu wa taala dafa leen ndam huwa tasakuruhu asli lbusharaati waan radita bi qaahin gayri saaxatihi wa in radita faasim min musibaati zuri lhabiba allasi yaquudu saa'irahu ila tariqi najaati walkaramaati huwa alladi kaana lil anaami marhamatan min rabbihim fi dunaahum walqiyaamaati ذاك المكي الذي الباري أفضله على كثير ممن هاس المزيات رئيس كريم تقي ناسه وره نف نفوه مفاتيح الغيوبات أوس كفيل مجير زاهد سند كنس المساكن مناح المرامات عون حليم نقي ناسه قسم حمى الأرامل دفاه الرزيات منير دين إله الناس رافعه خديم خير الورى نافي الضلالات من ساره لهدى أو ساره لندى آب بما رام من غير النسيئات من جاءه لاعتداء أو أضاق به باء بخسر وقمح وعقوبات لله قد زرته لا غيره أربي إذ ليس زينة هند بحواجاتي وهمتي شكر ربي لا شريك له جل له الأرضون كالسماوات لأنه جل يؤتيني المنى كرما wa yasturul xayba fiya kulla saaxaate ataytukal yawma dayfan atlubanna ridaa rabbil baraaya alladi yuulil maqaamaati xiraaya yaasiqati ridwaanuhu abadan bi gayri suxtin wa tawbiixin wa aafaati jasaaka rabbuka yaa sayxi wa yaa sanadi xayran malaasi wa isi kulla awqaati جزاك ربك يا خادي هوائج من يغدو إليك بخير ذا سكاياتي جزاك ربك ما يغبطك الفضلاء به بجاه السنا يوم الخصومات جزاك ربك خيرا هاهنا وخدا عن أمة المصطفى خير البريات سيدنا أحمد المحمود في أبد صلى عليه الذي يعطي بمناته صلى عليه صلاة لا مثيل لها بلال وسب من ينفي الرهونات فأجابه الشيخ الخديم عليهما أبدا رضوان الله الباقي القديم قائلا جزاك ربك في الدارين يا حسن خيرا بجاه الذي من نجله الحسن حتى تهوس